jërë ngeen jëf mbokk yi yaakaar naa ne ki ñu doxawal axlu lamb na mën na ko muy kan muy Kaw Cissé bu dali fort bokk na si champion yi nga xamante ni yàmba de lamb da leen a yaakaaroon depuis loolu nag gisuñu ko suñu borom nag mooy sàkkul boppam dessin dama ko jag nag njabootu lamb ñëpp naxarlu ko di ko wax saa su ne bay suñu borom déglu ko mu dellu si waat si Kaw Cissé ñu ngi lay nuyu leen di fay yéen waa presse bi yëpp leen di sant di gërëm li ngeen waxoon rek yàlla teggi na lépp waaw nekkoon si ay jafe-jafe mais fu mu ne nii yàlla teggi na lépp leen di sant yéen ñëpp yéen waa presse lamb bi maa leen siy gërëm baax a baax ndax taxaw ngeen si def ngeen si lu ngeen mun ba yàlla teggil ma nattu yi waaw te mu jig ma incha allah bëggal nga xamante ne nii mooy dégg ngeen euh, nga gis ni Dalifort kenn amatul jàmm boo amoon looy wax si nga xam xamante ni mooy waa Dalifort ak sa mbokku mbër waa Dalifort aw ma seen fay kom lu may chaque jour rek man fii laa juddoo yaroo fi màggee fi aw seen fay gis naa nuñ si sonnee ba ma génnee seetaan naa vidéo yëpp lamb yi tamit damay déglu ba may nekk foofu dama doon déglu émission lamb dara duma si raw dañuy seetaan télé tamit di seetaan lamb ji dara mënuñu si raw lu ñu wax si kaaw si rek dama boo amoon lay wax sa mbokku mbëri nga xamante ni nii yaakaar ne ñu ngi foofu jafe-jafe yi ngeen fa amoon di foofu avant ma ñëw ñëw sa mbokku mbëri sax jafe-jafe yi ngeen amoon foofu waaw foofu jafe-jafe bi lenn la mooy gëj a gis bi ngay gëj a gis say njaboot ak sa waa famille ak say dëkkandoo loolu mooy problème bi ak yàggaay bu yàgg bi ñu lay téye te duñ la àtte loolu mooy suñu problème foog ñuy teel a àtte détenu yi nga ñu mun a teel a fu ñu féetee am na mbër yu fa nekk nag comme Saloum Saloum maa ngi koy ñaanal yàlla tegal ko natt bi mbër yu fa nekk bëri am na ay yeneen mbër yu fa nekk ay Aliou fay ay Ibra Fall xam nga ay Ndiir mbër yu bëree bëri ñu jeex fan yi paase rek làmb amoon na fa demi-finale lañ yem nii sax si tournoi bi xam naa final bi yéen ñëpp di ngeen ñëw foofu xam nga seetaan si mbër yi ngeen xam ne ay champion tamit ñoo fa nekk waaw waaw ama ba nga génnee tamit nga génn fekk Dalifort révélation yi nekk di bëree di ko làmb commencé rek nga xam mooy Dalifort ba nga yëg-yëg nga am waaw sama xel daf si sedd torop torop torop ndax bu njëkk ba kaaw si Dalifort lañ doon wax léegi ñu ngi wax ñu bëri kaaw si sedd Dalifort caatu kayra xam nga esamay Dalifort bëri na quoi yaatu na léegi te ñun loolu lañ doon xeex quoi loolu kese moo doon tax ñu doon xeex ñu doon dem di bëre ji mbapat di bëre arène lépp pour lool la woon quoi pour yëkkati tuuru dëkk bi kese loolu moo ñu taxoon a jóg o léegi boo amoon li nga xam message boo xam ne moom ngay lancé mbëri nga xam ne ñoo nekk Dalifort loo leen di wax. non di leen di wax ñu gën a jàpp rek gën doon benn xam nga mbooloo moom mooy doole li ma gis ni moom nice na trop neex na ma trop ñu ñaan yàlla mu jëm si kanam quoi yalla musal ñu si seytaane xam nga affaire yi gën a nice ñun ñu nekk benn ñun ñëpp benn lañu fii gaa yëpp a juddandoo ñëpp a màggandoo ñëpp a amul kenn ku ñëw rax ñu ñun sens boobu la ñu am quoi amul kenn ku ñu rax ñëpp ñoo bokk ñëpp ay mbok lañ kër bu la neex ngay dugg xewalu kër bu la neex ngay dugg fanaan tëdd Californie ñun ñëpp benn lañ am kenn amul sens interdit fenn. lan lañ mën a am luy xaar yaakaar naa Kaolack si leen retour si làmb. waaw instant yi combat laay xaar ndax dama newoon si ay jafe-jafe dem ba yàlla teggi nattu boobu ma entraîné ba yëg sam bopp ba war a am combat beneen nattu ñëwaat muy deuxième nattu. moom mu ñaar ko ba bii jeexaat muy ñaar yi tegloo ba xam naa ni si ñaar yi moom ci lay yem bu neexee yàlla fii lay yem waaw fii moom xam naa ni fii la yem jeex na ko instant yi combat laay laaj gars i jox ma laaj ma benn mbër nag ma commencé waat a zéro Kaaw Seen nu mu débuté woon noonu la ñëwaatee du ma laaj benn mbër mbër bu bëgg bëre Kaaw Seen na ñëw ne Kaaw Seen laa bëgg bëre mais mënoo laaj mbër mais yaakaar naa ne am nga loo defoon ci làmb te yaakaar naa ne kenn du ko fàtte ndax yaakaar naa ne bam gudd na waaye loolu ñun ñii suñu bopp la bokk ñu gis daan def ay champion yu mag a mag ka aussi am na ñoo xam ne ñooy ay français adversaire am même bu fekkee ñoo jàppoo ni ñooñu laajoo leen mais làmb nga jàpp moo leen boole la ñoom waaw xam nga loolu dafa am ñoo xam ne ñoo ko yor muy staff ñoom instant yi ñoom ñoo may bi mbër bii ngay bëril ak mbër bee ngay bëril ma jël ko moo tax ñu ne ma bul laaj benn mbër bàyyil ba ñu xool mbër bi nga xam ne moom laaj na la pour bëri yow soxla na la nga jël ko bëri moom. mbër mu soxla kaw kaw si kaw si pare na. pare naa pare naa pour ñëpp kenn. mais sa pare na pour jël mbër yenn mbër yi. ñëpp. ndax gis nga espoir nekk ci lamb gi day xam nga leen. xam naa leen baax a baax xam naa leen baax a baax mais ñoom laay xaar muy sama morom ak koo xam ne moom ma mag ak xam ne maa ko mag bàyyum si kenn ku ñëw ma jël la je suis prêt pour tous les lutteurs. waaw ñëpp. lay wax mbokk amateurs yi wala soppe yi nga xam ne ñoo bëgg Kaw Cissé ak fan xam ne ñoo bëgg Kaw Cissé te mënuñoo jotee si Kaw Cissé loolu la wax. waaw maa ngi leen di sant di leen gërëm tamit di leen ñaanal ñu am jàmm bu baax a baax a baax waaw ndax Sénégal jàmm rek moo fi xaj waaw ñun ñëpp benn lañu quoi. di leen ñaanal ñoom ñëpp ku bugg gis Kaaw Cissé tamit Kaaw Cissé mu ngi Dalifort demul fenn fii la dëkk génnul demul fenn mu ngi biir Dalifort fii ku ko bugg gis rek ñëwal Dalifort waaw. kon naa ñu am Kaaw Cissé mu ngi ñëw retouram. waaw Kaaw Cissé mu ngi ñëw Isbak. waaw niw luk niw luk boo ak bii du benn. waaw ça fait deux gaayeen yoon na trop gaayeen ñu ngi xaar di muñ di bopp ba léegi ñaan yàlla affaire yi xoolal yem fi jeex tàkk xam nga des si kanam gaayeen mu nekk lu waaw kenn mënu ko xaar ñaar